خليفة رأيته هيلا بهذا ما ننوي صلاة أنستك في كل دار وكل آل ومال إن غدرت كروس إن غدرت كروس من هليل فخ بالي خذ بوعي بوالي هم خليفة وابكي سنين القوالي وتسقيها كل دمعي يمك فضل لا آلي مم خليفة دروعي انقطعت رسوم انقطعت رسوم من حالي فخبالي خبر بوع البوالي وابكي سنين الخوالي وتسقي خليفة وأوقدت باستياخي في القلب جزوة وتصالي وقد سقيت رقيقا السلام عليكم ورحمة الله di sant di gërëm rek ba ñu yàlla may ñu fekkeewaat eh, fekkeewaat jàmm ak salaam bés bii nii mi doon bés bu màgg ci ñun doon bés bu rëy parce que amuñ eh, lu dul bés bii nii rawatina nag di ci gërëm sunu sëriñ bi di ko ñaanal yàlla yàlla yokk mën-mën bi ak taxawaay bi yokk xéwal beeg sutura bi yokk ma xàmmay bi parce que vraiment kenn la ci ñun du lii rek moo ñu boole moo waral tey ñu arrêté sunu lépp ñëw simmeeku ngir liggéey ci boro guddi gi rawatina nag ngir borom guddi gi mais maam El Hadj ak maam xalifa rawatina ak baayam bi El Hadj Ibrahima ñas nga xam kenn la ci pays bi waaw ñii ñaan yàlla rek yàlla nañ yàlla may jisewaat fii. déwén nag jàmm. waaw macha allah macha allah luñ la wax rek am na lu ñu bàyyi lii lañ gis sax mais démb ba léegi ñu ngi ci rawatina tey ci bëccëg bi bu ngeen ñëwoon fekkee ndekki lii da ngeen naan déedéet waaye daal xam naa bu ne incha allah dina gën a yaatu ni nga. Euh, di nit ku baax di nit ku dëggu di nit koo xamee ni boo jubul mënoo leen ànd waaw ndax liggéey rek la xam bokk na ci li ñuy yokk jom euh, bañ mën a xëy di wuti dara. ndax boo toogeek moom rek bëgg dara ndax xamul lu du liggéey te mënoon na ne doomu sang la toog di xaar addiya waaye defu ko dafa simmeeku ba boo ko fekkee ci pays bi munoo xam ne taalibe la munoo xam ne doom la munoo xam ne sët la waaw liggéey rek la xam ñu di ko jaajëfalaat di ko sant di ko gërëm xana am contentement rek ci suñu bisu mam bi nga xamantani ko kep kuy julit rek war nga ko magal ndax sagu pey bi mu doon mam khalifa mo doon ko xamantani ñepp ko nawlo ndax ku nanguloon mag ñepp la woon rawatina tay ñu ñëw fekk suñu mag mam gor ña muy jambaari l'islam jambaari lew na ña seen di jambaari pey bi wax deug yalla rien à dire nit ku bax la ku bëgg mbokk ku gëm mamam aussi mamam jaral ko lu neena tay su ngeen ñewé si bërëb bi gis machallah ni mu yaangé ngeen xamni ni ci te maam Khalifa moo doon koo xamante ni képp ku jug pour di ci def lu baax amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am waa xanaa kontaan ndax xale bu am jom la koo xamante ni maamam rek moo ko jaral maam xalifa rek la maam góor xam moom la bëgg moom la gëm moom la doyloo moo tax chaque année daf koy gën a mën ci saal lañ ko doon def ren def nañ ko ci ëtt ëllëg ci penc ma lay doon incha allah waaw kooku moom suñ bàyyi jooj dañ koy jooy te noppeeguñu moom laa tuddee k nga xamante ni mooy le grand bâtisseur tey leew na bu demee ba mel nii yaan ji c'est grâce à dañ koy leeram ñu defee barkeem ndax liggéey bi ba tey mi ngi continuer lépp ci seen barke la wax dëgg yàlla amuñu seen fay. waaw gannaaw bi ma sante yàlla julli si yonent bi euh, di nuyu téléspectateur waa Kaolack TV yëpp euh, tey moom bésu kontaan la bésu sant yàlla la ndax euh, suñu yàlla mayee daaw ñu fekkee woon ko ren ñu santaat yàlla ba fekkewaat ko ren ñëw si bés bii di bésu ziyaaru Léona bi nga xam ne suñu sëriñ lañ koy defal kon loolu sant yàlla la mbégte la ressource la parce que dañuy am mbégte ak fierté di ñëw di fi teewaat pour ressource waat ci diine si xam-xam ku ne xam ne penc mi pencum xam-xam la pencum diine la kon sant yàlla ak fierté bu rëy lañ si am biñ nekkee julit nekk ay taalibe cheikh aussi waaw. maam góor euh, suñu xarit la d'abord ba pare nekk suñu sëriñ ndax euh, baayam ku nekk xam na ko moo nekk xalif bi nga xam ne moom moo dëdd koy ñaan yàlla yàlla yàlla yokku leeram moo initié lii di ko defal nag at mu jot nekkul tey la ko ren ren la ko war yàgg na koo def kon dañuy gërëm di sant di ko ñaanal yàlla mu koy gën di mën gën a gudd fan aussi tamit ndax euh, suñ sag la suñ fi teewee tey malgré ay taalibe lañ waaye moom dafa nekk koo xam ne ku spécial la ñu ñëw ngir moom di ko ziyaare si guddi gi di ko ñaanal si barke maam yàlla na yàlla gën ko taxaw maam góor ñaar jeunesse Kaolack xanaa ñu gën a góorgóorlu nangoo liggéey am jom topp sa diine jeune bu ko si def di nga raw وابكي سنين الخوالي ولتسقيح كل دمع يحميك فضل اللالي اذ بدموع البوالي وابكي سنين الخواني فلتسقي حق يحميك فضل اللاني آني ربوع البواني وابكي سنين الخواني والتسقي كل دمعي يحميك فضل اللاني آني ربوع البواني وتسقيها كل دواعي يهويك فضل آلي مام خليفة رأيته هيلا بهذا ما ننوي صلاة di am contentement parce que teewee nañ ko at yi weesu yëpp chaque année bu ñu ñëwee di am satisfaction di gën a am gën a yokkute euh, ñoom suñ benn wóolare di suñ sëriñ maam góor chaque année que Dieu fait moom moo ñuy invité faral di invité fii di nit ku baax nag waaw nit koo xam ne maanaam amuñ fayam di ñu jàppale ci côté bu nekk ci zaahir ak ci baatin maanaam di ko fédéli suñ kóolare di ko gën a tàllalaat ay loxo mu yokk ñaan maanaam daal maam góor daal amuñ fayam daal wax dëgg yàlla parce que nit ku baax rek mooy mooy def ni woo ay doomu aadama di leen teral te chaque année que Dieu fait da nga koy gën a yokk li ngay def maanaam da ngay def sa ba da ngay xeeb moom li muy def day def ba xeeb ko wax dëgg yàlla nit ku baax rek mooy mooy def loolu ko sant di ko gërëm nag waaw ku baax la ku ñu wéetal waaw ku ñu wéetal trop parce que booy fàttaliku lu baax lu baa bi doon def yëpp maanaam daal munoo munoo wax lépp daal mais daal wéetal nañu trop trop trop trop di ñaan dia mu taas si bar fi mu nekk eh, gënal ko fop fi mu jógee ah, waaw parce que mom moom amuñu ñaari xel sax si moom fi mu nit ku baax la woon wax dëgg yàlla ku di dénk jeunesse bi ne leen eh, ñu tey rek bañ dugg ci yenn yu bëri yi parce que fi mu mi trop te nit ku nekk da nga war a teey parce que xale nee nañ bu bëggee bañ a khat xat bi ak xiro bi ak ngaayo bi bañ kenn won ci mortal combat. waaw alhamdullah rek lañuy wax sante yalla euh, li mom lu war la quoi parce que sen euh, mam de ko liggey dem bàyyi fi sen bàyyi liggey dal bàyyi fi ñomit sen normal bu ñewé rek ñu téggu ci yoon bi len sen wajur yi yaré dal lool rek lañ ci mëna wax di ci ñaan yalla rek ñukoy téwé ay deuni bari taalibe yi di ñëw te lépp luñ si mën a ñaan rek yàlla defal ñu ko defal ñu jàmm suñu réew mais ñu yokkute si zaahir rek si baatin quoi. am góor ñas moom vraiment di ko ñaanal yàlla rek yàlla def ko mag magum diine magum lislaam yàlla saxal ko fi yokk wëram sàmm ko sàmm njabootam daal loolu lañ koy ñaanal parce que nit ku baax la nit ku yaru la te c'est normal aussi mooy li ma wax rek cest diir fi mu bokk la nii rek la mën a mel donc di ko ñaanal yàlla rek yàlla gën koo saxal gën koo dooleel daal sàmm ko sàmm njabootam incha allah. waaw alhamdulilah rek góor gi gisoo sama bouteille ba ma ñëwee gis ko si bouteille bi dama ne bouteille bi moom du ma ko sax dajji dama koy jël rek ñëw teg ko sama table mu nekk meuble chaque jour bu ma xëyee jàkkaarloog moom waaw macha allah daal di ko ñaanal yàlla rek fi mu nekk gënal ko fi mu jógee waaw te barke bi rek wàcc si ñun tamit quoi incha allah. xanaa neex rek ak jàmm rek El Hadj moom. jàngam moom yàgg naa cee ñëw lool dëgg yàlla tawféex rek waaw mais xanaa baax baax na yaru na teey na mag waaw te fekkee naa lu te fekkee naa fi lu bëri si Ibrahima moom si boppam dama doon toog ak moom di waxtaan moom suma xarit la ku baax la ku jullite woon la ku am lislaam la ku bugg tumuraanke la ku bugg nit la ku bugg njabootam waa dama koy ñaanal fu mu tëdd yal ko fa yàlla defal jàmm xanaa kay ma dénk leen kàddu yi rafet ak mujj bu rafet ñu topp seen tànki papa seen tan seen tànki baay ñu topp ko ak seen tànki kilifa ñu def lu baax seen baay lu mu doon def ñu def ko ñu topp ci seen ndigal loolu rek man laa di ñaan man waa ñu am jàmm rek man la yàlla na fi jàmm yàgg jàmm sax fi yéen ñu ko amee yéen it caméra yi yàlla na yàlla defal jàmm أنستك في كل دار وكل آل ومال إن غدرت كروس إن غدرت كروس من أهلي فخبالي خذ ربوعي بوالي هم خليفة وابكي سنين القوالي وتسقيها كل دمع يمك فضل لا آلي مام خليفة دروع معصوم من حالي فخبالي خبر بوع البوالي وابكتني alhamdulilahi rabil alamin dooli sant yàlla rek ak suñu xol bu sedd parce que tey moom suñu xol moo sedd fees na instant bi daal mënuma sax wax ma sama xol dafa sedd léegi nag instant bi maam góor ñes nekk suñ nijaay nekk suñ tonton nekk suñ lépp daal moo organisé fii def tracteur am interrogé ñuy wax xam nga damaa mëneewul wax loolu moo tax mu bëgg ma nag teg ma place teg ma foo xam ne tegu fa kenn nag ba doomam ji ñuy wax Pa Ibrahima sax ma maa bëgg oo oh, xale ko koo wax mu ne la maama nobu ma kenn maami caam laa nopp loolu nag mu jël ko nag jàpp ma ci kon nag bu taxawalee bisam bi tey dañ ciy taxaw seedeel ko lu rafet moom daal kontaan nañ kontaan nañ parce que tey moom ziyaara maam xalifa la lépp loo ci def rek yàlla dala koy indiwaatal mais tey moom macha allah kontaan nañ daal amuñ fayam di ñaan yàlla ñu teewee ko ay déwén yu bari bu déwén ñëwee daaxal ñu reñ lépp lu mu ci ñàkk ci bisu tey bii balaa weer bee dee na ko yàlla remplacer. instant bi daal moom kontaan dañ suñ xol sedd na bëgg na ma bëggaale sama jëkkër ba bañ na ko sama jëkkër démb ba mu ñëwee sax daf na ma dalal maam góor ñes moo ko invité moom lay dalal suba ba léegi nag loo xalaat mu ngi ko koy indee berne yi ndékki añ reer dara manqué wu ba léegi nii moo si mujj reer bi bëri na bëri goo xam ne da koo berneel ba ma tiit sax ba man reer bi ma ko tibbaloon pour mu lekk sax lekk ko daf na ma ci reeru maam góor bi laay reer parce que moo ma invité ci ziyaare bi maam baax na baax goo xam ne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 naan am del def defal nii si ziyaara yo man maa ngi fàttaliku bay bu ma ñëkk a rey si ziyaara an nga jëndee ñeenti junne sama papa ma mayoon moo mayoon juróom benn junne trente mille ma jënd si benn bay ñeenti junne jënd si benn paquet du boisson mu boobu moo ngi jar cinq mil loolu laa tàmmale bi euh, ziyaara bi ma def ko macha allah jour boobu benn béy la ak benn euh, keesu boisson mu des euh, cinq mille ma jëndee ko fir wi trente yooyu moo indi lii yëpp moo indi lii yëpp wax dëgg ñi defee ko ak plaisir nak deug yalla yàlla ñoo ngi sant euh, xarit yi ak wóllëre bu baax ci leen neexoo ñu bu leen woyé duñ ñew kër gu nekk amna lek fo tok témer sa boko génné lek ba su te tëdd nelaw kën du la xamal dara ci leen neexo ñu ñep tok seen kër kën du ñew ah, a bo leen waxé dañuy melni ni ñoko gëna bëgg ñoo leen si sante bu baax a baax a baax a baax wax dëgg yàlla yonent bi ma ngi sante tamit sama xarit yi ma jappalé ci li ku ci melni ni Ilimaan As Ndiaye Amène Mbaye Chérif Badiane jabaru Ilima Ndiaye ku ñu wax Bintu Ñang wax dëgg yàlla yonent bi ñoo ñëw bañ jàppee ziare ba léegi nelawun nelawun guddee bëccëg ñoo ngi xool li ñu def ba ziare bi réussir guddee bëccëg nag wax dëgg yàlla yonent bi aw ma seen fay daal aw seen fay yàlla ma am seen fay yal na yàlla leen fay ku mel ne ak Padiko waa alal dem na fi moom waaye daa mel ne alal demu si alal dem na ci te alal demu ci. waaw ndax am mbégte la nga ko defee daal nu may waxee yow nii maa ngi wax dëgg yàlla kontaan laa ci def alal dem na ci moom. lu may gën a fàttaliku ci moom mooy euh, bu ziara jublu see ba des deux semaine wala trois semaines loo ko wax lu du ziara waxoo moom moom lu mu lay wax ba ziara bi wéy loo ko munti wax boo ñëwee na ko papa nangam mën la ba ziara bi wéy boo na ko papa nangam la ba ziara bi wéy. fépp ziare bu woyut lu dugg si beneen programme te ziare bu woyut loolu lu ma gën a remarqué si moom lu ma gën a neex si moom loolu sax dama koy dundee bu ziare jublu si wala gàmmu jublu si nii fépp woyut du ma am jàmm man na wéy rek loo ma mënta wax na ziare bu woy loo mënta wax na gàmmu gu wéy ndax bisi yi suñu bisi maam la suñu maam yi nañ kaa fonkoon lool da nga ko defal Cheikhou Tidiane te ñun Cheikhou Tidiane mooy suñu lépp gannaaw Cheikhou Tidiane mooy si lépp mooy suñu lépp ndeyjoor càmmoñ ak suuf. Cheikh Tidiane la ñuy nooyee si côté bépp. lu mel ni lu mel ni maa ngi koy soog a def ziare si néeg laa ko commencé man la koy wax sànq si benn béy la benn keesu poisson euh, fir wi 5000 si benn néeg la commencé ñeenti nit wóor ko benn béy boobu 30 dara euh, benn béy boobu ren 30 béy la jur. benn keesu poisson boobu ren kenn xamul ñaata keesu poisson la jur 5000 fir wi yooyu kenn xamul ren ñaata keesu fir wi la jur. def ko ànd ak cawarte nag wax dëgg yàlla ñi ma si dem jàpp ñi ma siy jàppale ba heure bii ma seen fay ku si mel ni Mor Talla moom ak Mouhamed rakk Mor Talla aw ma seen fay wax dëgg yàlla jàppale ne ma si kaw ak suuf bég si ñoom lool kontaan si ñoom lool wax dëgg yàlla bég naa lool kontaan naa lool. li ma leen ñu gën a dénk daal ñu gën a raxas xol yi defar jukko yi bàyyi xeex bay xuloo ak xasante bee wax ju ñaaw gi si internet bi ak si tele yi internet bi boo koy lii li lii suñu ustaasa di wax booy liir internet wallahi da ngay rus boo toogee di seetaan télé wallahi da rus ay magam jëmm ponkali jëmm toog di xasante du waxante lu ñaaw waxante lu bon loolu Sénégal war na dépassé foofu lu ko gën a yokk mooy politique bi te politique ba amul benn njëriñ amul benn njëriñ war nañoo dépassé foofu Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar nañ gën a jàppalante gën a raxas xol yi gën a jublu si yoonu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi lépp lu mu woote képp ku si euh, ku si topp njëriñ rek nga siy gis wallahi barke Cheikh Tidiane njëriñ rek nga siy gis. dëgg yàlla aw ma fayam yàlla moo am seen fayda yal na leen fay si barke Cheikh Tidiane maa ngi bég naa lool wallahi damaa bég ba mënu maa wax barke Cheikh Tidiane damaa bég lool.